بسم الإله يكفيني الأقدار يا الله سف البخاء به لي فيك يا الله بسم الإله أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى bokk julit yi xarit yi ak am di jammi ak soppe yi fu waaye nek ci réew yi mo xam bitim réew mo xam fi ci Sénégal ñoo ngi leen di nuyu nuyu julit nuyu islam diko ko ci suñu xol jëme ko ci seen jëm yu sel yu teddi yi te moo di wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyu kilifa diine yi nekk ci Sénégal yépp di ci jiital xalifa généraux yi xalifatul am li taifatul muridiya Cheikh Mahamadul Muntaxa radiallahu anhu di dem ba Tiwaawan di nuyu sëñ Babacar Si Mansour radiallahu anhu di dem ba Yoof di nuyu Cheikh Abdoulahi Thiaw di dem ba kawlax di nuyu xalifa général kullu ñaseen ak képp ko am cër ci lislaam te nekk ci réewum senegal moo xam sëriñ daara nga moo xam imaam nga moo xam ustaas nga ak cër boo mën a yor ñoo ngi lay nuyu te di la ziyaara di jox wàccuwaay bu yell ci yow di nuyu kilifa aada yépp di leen ziyaara bu baax a baax di ko jiite ci président de la république sénégal ba ki ci gëna ndaw le nobal tank ñoo ngi ñëpp di leen ziyara di ñaanal ñëpp tawféex ak taysir bu ko defee ñu and ak yeen seen émission waxtaanu diiné ci nasru Media tv fi ci atum nasru minallah and ko ak cheikh Serif asan kan borom nasru serigne bi ñoo ngi lay nuyu di la wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jël baye nga nuyu ak askan wi waaleykum salaam <clears throat> wa rahmatullahi taala wa barakaatu xanaa suñ xaadim bu nu jiitalee sant yàlla suñu borom toor ko taala nin baaxoo def comme su aada te wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi ala kulli xaal alhamdulilahi xaqa xamdi alhamdulilahi alwahidul ahad suma salaatu wasalaam ala asraf al mursalin sayidina wa mawlana muhammad alayhi salatu wasalaam nu ngi nungu nuyoo waaye noo ngi fay nuyoo ci képp ko xam ni yaa ngi topp seen bii di Nasrou TV Média foo mën a nekk ci àdduna bi di soppe yu sori ci ay réew mën naa la wax ni ñu dalee depuis Amérique ni ñoom soxna Mari ñoom mag dañ daam ak ñi ci top ci seen ginnaaw def Amérique ba mu jeex ak dëkk yi ci biir yépp dañu tiir dem ba union européen siyaar leen ñoom tamit jox leen loxo ñëw Afrique siyaar soppe yi fi nekk nga xam ne ñëpp ñu ñuy xaar dem ba sa wujjee suñu xarit yu baax ya fa nekk te ñu jot leen fan yi ñëpp di ko rafetlu ñëw li wër fi ci suñu environnement bi di siyaar ñëpp tabbi ci biir réew mi mën naa dem ba Londres ay Espagne Italie talibé yu baax yi fa nekk Suisse si wet ñëpp di ñu toog di ñu suivre di leen ñaanal yàlla suñu jataay bi fekk leen ci jàmm ñoom comme ni nekkee ci jàmm di ko def yàlla na ko yàlla def di nuyu ñu nekk ca salle bi ak kilifa diini kilifa aada ni nga ko waxee di barkeelu ci barke maam yu tedd yi li ñaan yàlla mi nga xam ne ma wax ni ñoom alxaq naa bihim suriyatihim martal bi leen yàlla yéegal yàlla nañ ko mérito te yàlla musal ñëpp ci ndox góor jigéen mag ak ndaw suñu amee yi yëpp kon ñëwaat seen jataay waxtaanu diini fii ci nasrullah kër sëriñ Asan bismillah soxna sëñ Xaadim jërëjëf sëriñ bi ñoo ngi lay dalal bu baax a baax ci seen émission waxtaanu diine boo ko defee ñu jàll ci laaj yi mbokk mi dafay laaj lan mooy astaghfirullah astaghfirullah ak lan mooy ay njëriñam benn baat la boo xam ne dañuy wax ni bu suñ borom di bu bu ab jaam di communiquer digganteem ak borom mooy astaxfirullah maanaam excusez-moi waaw maanaam jéggal ma saa yu jaam yi demee ba yëg ni am na ay faux yu mu def ci dundam ragal ni yàlla nga koy topp dara suñ borom baat boobu la ko jox wax comme jumtukaay ni ko mën nga ci sukkandiku pour dellusiwaat ci ci pénc bi ah globalement boo ko dee tekki mooy maa ngi jéggulu yàlla lu rëy ci suñu borom la tabar wa taala xam nga yalla may wax ni ñi nga xamni fa tarafu bi san bihim ñom dem nañ ba xamni dañu jatt waye ñu rek kanowatir ni dañu jatt su boba bu ñu nungo wax ak man li ma gracier leen ñom ñëpp ñu am jàmm benn la ci façon yalla wax so defé ni so ba ni da nga te nunguwoo wax baat bi suñ boroom nee na fa soxande asaabi saxiir dama lay yóbbu sawara bu ñu wax saxiir yal nañ ci yàlla gis fale mun ni ñi nga xam ni dañoo jëf aw ñaawteef biñ jëfee ñaawteef ñu dem ba ci biir ñu yëg jëf nañ ko ñu nangoo wàññi ko tuub am na nu ko alxuraan waxee bi jaala aw yaslim nafsahu summa yastaghfirillah kay yajidillah ghafuran rahim loolu la suñu borom tabaraka taala wax ku def lu ñaaw yow mi ko def nga yëg ni def nga ko borom bi nga ko def yëg ni def nga ko ki nga ko seqal yëg ni def nga ko nga dem ba benn moment nga regretté wu tëju sa néeg ni yàlla def naa lu ma warul def waaye awma solution pour rëcc wala pour nekkat ci jamm wala pour delwat ala ma place bo ci jàpput suma astaghfirullah, nga jël astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah lim bi nga bi la neex rek nga tuddu ko suñu borom tabaraka suñu borom ma laaj sa dossier bi nga ma trois li ma dugalon malaka yi ko gardon andil mako hmm. ma def ci pic effacé ko xam nga loolu ngeen di effacé balanko nga balanko ko joxaat na fooy bi nga demal sa yoon loo defaat lu rafet ma teg ko ci kaw la nga defoon ca lu ñaaw te du ma la toppaat lool. am na feneen fu muy wax nii waxtu woo defee loo war sa def ba ma yëg nii lii ma def waroo koo def nga yëg ni waroo ko def. mais nga reconnaître sa défaut nga wat ni yalla dama bëgg a sëñ borom néna buma lay yéggal duma ma yem ci yéggal kepp bàyyi dama lay yëkkal sa fonction yu badilulaahu asanaat ndeysaan li nga ñaawlé sëñ borom du ko as aas yóbbu ci popel bi par exemple yéré bu am tas nga sol taas gi yére bi am taas du tax ñu fa sànni ko ca poubelle bi dañ koy jël ndaave ko raxas ko ba mu set. ñu cuubaat ko ba noppi paasawaat ko ba mu aw yoon ma jox la nga sol suñ borom nee day soppi bakkaar lu baax aw yu jox la ko yu baddilu law sayyi'aatihim hasanat la ngeen ñaawale woon mu defaat ko rafet delloo la kon baat bi dafa rëy borom bi indi ko suñu diggante ak moom pour ku juum ku ne nga dellu ci képp ku ko rëy wax. yàlla bëggal la ku ko nungoo wax yàlla teral la te baat bi jombut kenn xam nga bu suñu borom di wax nii na ma ñëpp di balu àq parce que ku dérapé wul amut yàlla ko wax ci alxuraan moom ngeen di wax ni niil na parfait kenn ku mat amut ku ne am nga njuumte góor jigéen mag ak ndaw njuumte yi dul bokk ñii dañ koy jëf ci cër ñii di ko wax ci làmmiñ ñii di ko gis ci bët ñii di ko dégg ci nopp ñii di ko dox ci tànk mais ku nekk fi nga juumee maanaam jàpp ni ñu ma yàlla rek ci tooñ yàlla la bokk xam nga booy gis baatu li yaxfira laka allah ma taxaddama min sanbika wa ma taaxar borom bi tabaraka taala buy wax yonente bi salaf ne ko baal naa la te yonent bi deful bàkkaar yi ñu yi ñu man a wax parce am na bàkkaar bàkkaar bi mooy jàppoon na ni niveau bi mu toll bi ko yàlla waxee ni ko dinaa la jox lu ko gën muy xalaat ci kawam xelam est-ce que man ni ma yàlla def mun naa am lu ko nekk loolu bàkkaar la ci moom gis nga boobu bàkkaar ndax daa mel daawutoon yàlla yem voilà te yàlla laa muhaqqiba li hukmihi <laughs> te te te suñ borom amul yemukaay amul frontière nee na yéen am ngeen fu ngeen yem mais man laa ma xaqibal xukki bii man aw ma aw ma frontière fa ngeen tële ba yoon lottu fa suñu borom nee fa laa commencé jëm kaw. parce que li ngeen def maa yéen a ko doon ànd bu ngeen tële ci laa continuer laa ma xaqibal xukki bii kon yàlla amul frontière. moo tax bi son yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko suñu borom waxee dama lay gën a yokkal say fonction yokkal la say salaire mooy yool yi tuyaabu yi ci benn jëf boo jëf au lieu ma fay la ko benn dama koy def fukk. mu xalaat ci xelam man ni ma yàlla mi defal ci ci ci ci ci tolluwaay ci kéemtaan ci nangam est-ce que mun na am lu ko ëpp suñu borom ne ko tooñ nga ma parce que aw ma fu may mën naa lu ëpp loolu loolu mooy bakkaaram bokkut ak benn aas bu jóg baraaye dem ci dëkk bi toj kaa si jàmbur yooyu du benn waaw moom la wax ni ñi yu baax yi seen lu ñaaw mooy lu rafetu ñi nekk ci suuf yi nga xam ne seen niveau soriwut kon su boba da ngay yek ni wa kay asal mu ko akay gaay yu baax seen lu ñaaw ñun moy li ñu rafet non non non man mooy fi nek non motax tax am na ñoo xamni yalla du leen pardonner dara parce que ñew biñ ñu toll la kon da nga war cee dégg ni nit ko wurtal na ko ci yërmande suñu borom non non non non ala kulli al foo wax na ko ci alxuraan dafa ni ku melni man ak yeen jàddkat yëpp nañ xam ni yàlla ma wax ci alxuraan ni la taqnatu min rahmatillah bu kenn naagu ni def naa loo xam ni yàlla du ma baal gis nga loolu c'est parce que inna laa yaxfiru sunuba jamia suñ borom day balee mbooleem ne taq ci nit su lay baal lépp lay boole suuturaam yërmandeem kenn xamul lu mu toll kon kenn bu mu jàpp ni yàlla mën ngaa def lu tax du la yóbbu àjjana ëllëg mais itam bu rëy ba jàpp du la yóbbu sawara de positif fi ak négatif fo nga comprendre ñaari ñaari ñaari sens yi mhm. bo bëgg ak négatif wa kay yow li nga defee ni oh lima def man wéru koor yi woor naa ko jeex aj na makka nat asaka saraxe li lii defal naa lii eh, kon fi ne mom saye suñu borom yow sawara la jëme yow mhm. parce que bi tal gi nga ko tal ba def ko suñu won ak kay bi yalla bi yalla jox do ko tal ki julli ben julli farata mhm. te julli ko ni ko war a jullee mm-hmm. waaw su su noo yiwul dina ko julli su woppoon dina ko def mm-hmm. su mu ay tànk dina taxaw mm-hmm. kon jumtukaay bi ñu la jox ba nga mën ko sëñ bi boo fekkee da ngaa gis yow eh, sa sa sa sa te gisoo li ñu la defal ba nga mën effort bi fa yàlla njukkal waaye tamit kenn gënul naa fex ki jàpp ne yàlla mënu koo baal waaw boo gisee borom bi wax ni nafiq maanaam kàccoor kàccoor waxuma naafiq bu gëm ni yàlla am na yërmaande moo gënal suñu borom imaam bu jàpp ni yàlla du yërëm kenn xam nga loolu dafa yéeme en tant que imaam ak garaatam waaye mu ni lii koo defee yàlla lakk la daal di koy codé alfajiru raji rahmatillahi voilà benn porte de sortie moom imaam ëpp naa def masalan ku naan sàngara dem sawara daa wax na wax ni boo tuubut ku mu yàlla dem sawara danni boo tuubut mais mu dafa la joxal jox condamnation bi te wutaloo benn porte sortie suñu borom ne ko est-ce que da nga boo waxee ba pare da bàyyi benn benn jumtukaay bu nekk mën a jaar pour génn parce que andi wu fi nit ñi pour prisonnier neen moo tax mu ne laa taqnatu min rahmatillah parce que inna laa yaxfiru sunuba jamia yàlla nee nag lépp lay baale kon moo tax mu jox nañu baatu yu astaghfirullah bii suñu xaatim nu war ko jëfandikoo pour génn ci maanaam jafe bu difficile bu catastrophique pour nekk ci beneen cas boo xam ni soo ci duggee li nga bëgg di ko am kon loolu mooy astaxfirullah mu des soo bëggee dem fi nga bëgg a dem fan nga war a jaar pour jàll fa loolu nag moom lay jox nag yoon yi nga war a jaar pour génn li ma doon wax en détail dama doon defal li ñuy wax introduction pour nga xam astaxfirullah mooy lan ba pare caabi ban la man nga lu ne ci kaw suuf gis nga maa ngi lay wax fan yi passé ni la boo ko dee seet fukki leetar la moom baat bi astaxfirullah am na alif am na siin am na tatombe muy am na xaaf am na faa am na raa am na beneen alif am ñaari lam ak ben ha ah, fukki lettre la ben lettre bu da fay symboliser ben ismaïl ansam xam nga li jankat tubaab bi do wax mom la ko sun borom def maanaam baat bi dafa boot fukki tur voilà tey boo doon def nasru media TV nga andi N andi M indi tee end bi moy nasu mm-hmm. m eh, waaw nasu média m bi moy mooy média bi mm-hmm. tiwi nga indi tee manam ñet lettre rek nga indi waaw manam yalla suñu borom dafa apprécié ci astaghfirullah fukki ismail ahsan pour pour bu kat bi mana xam lim bëgg def lan la mm-hmm. bismillah ben baat bu jëk bi moy allah moy alif bi deuxième version bi mooy sattaaru bi firi yàlla suturaal ma beneen bi ci mooy at bi firi maa ngi tuub déggal joor rek bi ci mooy firi xafaaru bi firi yow rek yaa mën a jéggale beneen bi mooy firi al faradu waaw fata bi firi yow yàlla yow li nga man yow képp yaa ko man yaa wiir beneen bi mooy firi ar rafuuf bi firi yërmande nga indi beneen alif bi mu jox la allah albarru ci boppam yow yow rek yaa baax. Mm-hmm. indi beneen laam bi mu jox la laa ilaha illallah muy amul benn buur bu ko sañ budul yàlla. Mm-hmm. beneen bi nekk allatif mooy yow rek yaa am yërmandi. Mm-hmm. ba ci mujj di xaad yi mooy koo orienté mu dem koo orienté wul du dem. <laughs> astafurlah xoolal xoolal ma xoolal fukk nga xam ne boo waxee astaxfirullah benn yoon tudd nga yii yëpp ma la wax. léegi nak soko ko set ni mom xam nga borom bi day wax ci alcorane ni yonti yalla no da ko waxoon waxal ak sa njabot parce que bakari dafa bari astaghfiru rabbakum dajaleel pinch mi ñëpp ñu dem ci sen assemblée yi wate sen loi yi xamni lima teural li na ñëpp dajé pour jégglu astaghfiru rabbakum foofu sax la bëgguna ñew ndax kon fi ma déggee sax dafa mel ni astaghfirullah maanaam tur yàlla yi nga xam ne yëpp moom la symboliser ci biir mm-hmm. mooy waral kon wërsëg nekk ci biir ubbeeku nekk ci biir ak yëkkati nekk ci biir bu tewee taw bu ko nit ki saxalee mu taw mm-hmm. bu nit ki nekkee ci bekkoor mm-hmm. bu ko saxalee day daal di ubbeeku même bu nit ko feebaree mel bu ci nekkee bu yàggee day day wér même bu nit ki tewee am doom sax bu nekkee ci astaghfirullah mën na ko may doon dafa mel ni moo ko wax borom bi moo wax aas ni yont yalla no yow president yow demal nga wax president assemblée waxin la yont yalla no bo mo nek le prophète ñi nek ci suufam nak yor batam diko doxal ñoy yor assemblée yi mi am problème parce que daf leena war depuis mille ans yu manke 45 ans ñu lank lànk ñu yalla suñu borom xey xey na balen di duma ñom ñep bekkoore réew mi yalla ñi ko bala may def nak nattu ci seen kaw indonation yi ah ñàkk gi tàngoor wi ndox mu taxaw nanga nanga waxtaan leen ngeen tuub wax leen ne nan jégul yàlla suñ ko defee innahu kaana xafaara yow ñoont yàlla nu maa ngi lay xamal ni jël naa sama engagement ak sama décision dinaa def décret baal leen innahu kaana xafaara président sañ na ko jël décret xëy xëy génne ko wax ni xamul kum tooñ ku tooñ ku la neex président toog ca pare 24 de benn benn kii jot mu bind kayit ni jéggal naa 1000 personnes nekk ci benn waaye benn prison fekk fa joo xam ne kun tooñ président xamu ko la mu tooñee xamuñu ko kan tooñ ni ko génnal loolu ci doole yàlla la bokk inna ko kana xafaaraas jël yàlla day jël décret pour jéggal leen ci baat bi du ca yam yursir sama aleykum midraara waa dafa am buuña waa dalay baal ba noppi xam nga def loo xam ne nga jàpp dañuy sanctionné au lieu kon ñu sanctionné la ñu foofu la gra gracier ba pare gradé la maanaam gracier ak gradé xam nga ñaari mbir la yu bokkul. kenn la moo tax moom rek moo moo mat borom yàlla rek la mat borom te bu jubóo yow lu mu bëgg defal la ko maanaam jéggal la ba noppi gradé la boole la ci biir. yokkal la say fonction ah yow kat danga nga tooñoon mais nu nga da nga tooñ léegi dama lay déplacé palace bi yóbbu la fee mais fee gën yu mel noonu. yursilu sama alaykum bidrara comme tuub da dana len tawal rew mepp punat, da na len defal lolu comme tout ngeen def nako yursilu sama alaykum bidrara duma ci yem wa didukum bi walin wa banin na len may njabot nga xamé ko ndam daam ñoo xam ne bàkkaar moo leen ban bu ñu jur gis nga limu man dafa bari xam nga boy serigne bobu dafa am ijaaba di ñaan ñeenti jëmm dikkal ko ku ne am sa soxla bopp kii soxna su sëy ba bëgg màgget te amul doom la ñu ne ko sëñ xaarim de ku mën a ñaan la pour nga am doom mu ne xaaral ma seeti ko mu xëy jël oto dem këram ñëw ni ko man de sëñ bi dama tax a jóg mooy bëgg njaboot te maa ngi bëgg a saat lu tax uma dara fekk sëñ bi jàpp man ko nga may ma tuuti waaye bind benn secret ni ko téyel ma ko ma ñëw wax la day faj saajo foofu la nekk fi mu toog di ko di wax waxam noppeegul keneen agsi ne ko ko baax yow de yow laa seet si man ñoom aas loolu sa soxla mu ne ko man dama amul palaasu liggéeyukaay fu ne aw naa fa waaye mën naa fexe ban jël ma sëñ bi bind benn baat jox ko ni ko téyel ma ma eggale kii afa muy jóg soxna si agsi ne ko man de damaa feebar bopp bi métti mbaa biir mbaa nangam fu dem naa fa hôpital hôpital wéru ma ñëw bëgg nga saafara mu bind benn baat jox la keneen ki ñëw ñu ko ñun suñu dëkk dafa bekkoor bu tawee du am ndox daanaka ay xeer la xiif baa ngi ñuy bëgg a rey ni yebal ma waa dëkk bi naa ñëw seet la pour nga defal nu ñaan mu bind benn baat jox ko hmm. kilifa ñëw mu sëñ bi dugg ci biir ñoom ñeent ñi toogoon di ñaan lu si ku nekk dañ koy foo jóge masalan kii ni ko Thiès foo jóge Dakar foo jóge Ndar foo jóge Bérou Sànq luy sa soxla man de lii ma daa soxla. Mhm. mu ne nii ne ko ah man de lii la ma jox xam nga jigéen ñi fu mu dajale ñuy jëw. Mhm. waaw xalaat ah lu mu la jox mu génn ma ne ko man de astaghfirullah dama wax. ñu mhm. mën naa ko téye mooy fay sama aajo. kooku ne ah yow loo ko wax mu ne ko doom mu ne man mooy doom ma wax astaghfirullah. mel ni ku yore bàkkaar yow nag loo xool koo génne ne ko même même man tam même moo bi la ma jox. Mm-hmm. moom mi sàkku si palaasu liggéeyukaay. Mm-hmm. keneen ki feebar looy seet mu ne ko même moo bi la ma jox. Mm-hmm. ki seen dëkk bekkoor mu ne ko même moo bi la ma jox. sëñ bi ñëw soxna si jë gën a pànk ci ñoom ne ko balaa nga ñuy wax maara man lii indiwuma fi. dama am sama soxla lu tegtal ma la ma seet si la. ma wax la sama soxla ñuy wax la lii te li ma jox li ma jox ñoo nuroo loolu lan la. mu ne ko man joxuma la ko yàlla moo ma wax ni lii may faj sa aju. mooy lan. ana ki nga xamni fum dekk da bekor mané bekkoor mu ne ko borom néna so saxé ci astaghfirullah yursilu sama alaykum midraara suñu borom dana soti ndox fa nga dekk ba dekk ba nat la woon lepp daal di gis nga ko mm-hmm. la si akhrajal marha mm-hmm. fa khusan ahwa mané mm-hmm. ko kon jël astaghfirullah ana ak kan wayum di ko bi wali banin yéen ñi nga xamni da ngay liggéey liggéey amo dara mu ne waaw mu ne ko jëlal astaxfirullah soo ci saxee léegi suñu borom may la alal li nga bëgg nga am ko soxna si noonu ñaan la doom ba wane wa banin boo saxee ci astaxfirullah di nga ko am wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara ñi doon wut place mbaa ñu bëgg a tukki nañ jël astaxfirullah nekkatoon astaxfirullah mooy lépp kon maanaam fital gu am ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti ñeenti gémmiñ ak dañuy wax d'une paire deux coups wala ko bëri ma ko bëri ma buy teree te ñeenti feebar ko da ko ëpp sax dala ci jox loolu rek xam nga vitamine C <laughs> li muy def ci nit ëpp na ëpp na ëpp na rek bañ a nelaw da bañ a nelaw lu ba sawar loola boo sawaree loolu mën nga ko caa def kon laa mooy globalement li nga xam ne mooy fondation wu lu ne pour boo ci nekkee dem bañ nekk ba lislaam sax boo ci dugg dañ naan ndax tuub nga wala nga ne man tuubeen la parce que astafurlah mooy tout ça soo ko ñàkkee ñàkk nga lépp kon minimum boo gisee yonent dafa wax ni yahut boobu deewoon te ñu wax ni ko ñaanal ko te fekk mu yore doomu jitleem bu papa Seydou moom keneen mi ko waxee ne sama papa dafa faatu te yow rek laa yaakaar ba ma juddoo ba léegi maa ngi sa ñaanal sama papa bi yonte bëggee ñaan yàlla pour mu baal ko suñu borom da ko wax ni ko jarul ñaan parce que kii nga may tinu ci moom soo ñaanee ak soo ñaanul in tas in in tastaxfir lahum waaw وما كان لهم ليعذبهم وانت فيهم وما كان لهم يعذبهم ويستغفرون نعم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم نعم. ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم برام نيكو سو فيكون نغا ريبتي 70 فوا 70 فوا باتو يالا بالكو تخما بالكو باسكو 70 دا فري كون يو بوتي دي ديف 1000 فوا استغفر الله يا يوخاتي كوم يونتي ميغا خاني بن نيانام كين خامنو مو تون ndax foor yàlla ne ko boo ko waxoon soixante-dix fois du tax ma baal ko kon boo toogee wax ko juróom ñaar maanaam 1947 fois ci lim yooyu laa jëm si kenn mën laa wax mu toll kon nag na nga xam ne ku ko saxoon soixante-dix fois képp loo tooñ yàlla baal la soo ko saxoon soixante-dix fois képp bis bu ne fokk yàlla ubbi sa wërsëg bu ne ba ci kanamu waxtaan wi danaa la won ni benn waaye ngi ci palaasam di liggéey di ko tudd ndànk-ndànk ba yàlla may ko lépp incha allah loolu day ñëw ngoo ko ndeysaan sëriñ bi am na solo lool euh, ci leeral gi ci astaghfirullah jotaay bi des na dinañ ci gën a xuus ci lu bari ndax bëgg nañu am njëriñ yi ak xeetu istighfar yi ndax dañu ñu ngi dégg ak sayri istighfar ak ak yu mel noonu yooyu dina mata a leeral ci émission bi waaye sa réponse bu am solo bi mu mel ni ñu niy seetaan yëpp dinañ ci dégg njëriñ lu yaatoo yaatu ci fànn yu baree baree bari waaye dafa am benn addis boo xam ni dafa nekk sama xel waaye ci firi nga firi aay bi la preuve dafa mel ni daf koo firi. sa wax sa sa waxtaan yi dafa dafa firi addis boobu. ci sama jàngat kon day mel ni suñu borom moo bëgg jaam bi ko tooñ. ngir ak matam mën a feeñ. ak doy di ndax maa ngi gis benn addis sallallahu alayhi di wax ni wallazi eh, nafsi bi yadi la zahaballahu bikum wali jaa bi xawmin yuznibuuna fa yastaxfiruuna fa yastaxfiruuna allah fa yaxfira lahum yenn saa ni maa ngi génn ki nga xamni sama bakkar mi ngi ci loxom mm-hmm. bu fekkon du ngeen def du ngeen doon def bàkkaar mm-hmm. yàlla dina leen fi jële indi fi ñeneen ñu di ko tooñ mu jëlee ni jéggal lolu señ bi loolu moom yéeme na lolu déedéet da ko def xam nga xam nga xam nga yalla bu defee ben ben ben théorie après def pratique. Mm-hmm. parce que li tax nga ko paré mu bal la ba paré grâce yi la tégal la ci ay ay buña ak ay neexal kon da mel da bëgg. dëgg la. parce que parce que grandeur lay wone xam nga kenn ko tooñ ci as ci famille bi muy yont yàlla Adam Adam day ñëw benn yoon booy dugg ci jigéen ñi sababu tooñ ci mais pour addis bi borom bi di ko woon ni mu toll ndax boo dee ba ci mujj aayat ba ko wax ne ihbitoo a ci génn leen sama kër. day mel ni rek que da ngeen tooñ ba ñëpp génn. aadama daa ñëw ba ba mu ne cëpp ci kaw suuf xamul fu mu jëm mu xalaat lu ma indi fii nan laay def suñu borom da ko ni am nga may naa la deuxième sens ihbitu bi salaamin minna man ngeen fexe ba dellusiwaat fi ngeen jógoon beneen yoon daa ñëw ci boobu kii xam nga yaa ma tooñ yaa sa soxna mu ne waaw mu ne ko mu ne ko may naa la pour nga xam ni ma tool sama kàttan dama la fi bàyyi nga jur ay doom ñu tooñ ma say doom juri doom ñu tooñ ma seeni doom juru doom ñu tooñ ma seeni sët jur ay sët ñu tooñ ma ngeen di tooñante di tooñante di tooñante ba tooñ yi ëpp leen doole ngeen wax baat benn yoon ma baal leen ñëpp di bu àjjana. waaw jërëjëf sëriñ bi kon yaakaar naa mboolem ku ñu seetaan rek ak foo mën a nekk ci gox yi fasantikoo yi dégg nga ci leeral sëñ bi ci laa lu doy sëkk njariñ ci ci ci ñépp waaye ñu jàng ci ni kon ab jaam warul naagu ci yërmande suñu borom ak bàkkar boo mën a def moo xam da ngay njaalo moo xam tux moo xam naan sàngara moo xam sàcc waaye bàkkar boo mën a def rek ak lu mu rëy rëy mu mel ni boo delloo ci kanama suñu borom nga tubal ko mu jéggal la te bu la jéggalee du ca yam dalay buuñaa defal la ay neexal teg ci li sëñ bi indi ci leeral loolu lañ ci jànge kon waaw astaghfirullah dina ci gën a jekk jël siwaat ci baat bi ndax amna na ay istighfar yu istighfar yu woote si waruñ waruñ cee dimbali anduñ ci ay leeral ak i lim yoo xam ni boo ko defee direct rek li nga bëgg di ko am mu njéggalu suñu borom ak i yu yu sax dàkk kon ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen wax ni seen émission Nasrou Média TV euh, jeex na fii ñu yem ni di delluwaat di sant kilifa yi diine yëpp di sante Sénégalais yëpp mboolem ñu ni seetaan ci rew mek bitim réew soppeek xarit ak am jambi jàmm yi ak mbokki taalibe yépp rawatina Lamida Nasru Media TV di ñaan suñu borom defal nuñu dégg ak ak top di leen wax nit ngeen abonné ci sen bi ba nopi gën ko yaatal kep ku nga xam muy sen bokkum jullit ngeen yéene ko jamm ngeen fexe envoyer ko site bi mu mu abonné ci ndax jangale la jangalem diine te sallallahu alayhi wasallam neena nee anni wala bi aya na ngeen jël ci lima ma di ci jottali ñeneen kon képp koo xam ne fexe nga ba nit ki am site bi rek abonné ci mel nga ni lu mu ci jariñoo di nga bokk moom tiyaaba ja ndax yaa tax mu xam ko ba dugg ci te loolu njëriñ mënu ko kawe àdduna ak alaxira kon nañ ci bàyyi xel bu baax ndax njëriñu lépp loolu rek moo doonoon kàddu yi. ñu ngi ci mercredi 27 novembre. waaw 2019. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di nuyu sama caméraman soxna Adama mu sëñ Babacar radiyallahu anhu As. ñep wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere ngeen jëf kon sëriñ bi def ñaan